xam nañ ni mbay bi dafay am lu am solo lu muy indi ci kom réew mi te mu nek lo xamantene dina dimbale ndaw ñi pour ñu am xey donc di am kontante euh, di nuyu aussi ñi nga xamantene ñom ñoom ñoo jàppale euh, producteur yi pour tay ji ñu am li donc ma ngi gërëm bu baaxa baax intervention d'air intervention euh, LBA intervention USAID intervention euh, ARM ñëpp ñi nga xamante ne ŋànk nañ ko di wax ni ministère du commerce dafa am ay objectifs yu leer ci mbirum mbay bi bu ci njëkk mooy fexe ba li nga xamante ne moom mooy yàqu ci mbay mi mu jeex te loolu pour ñu man koo def dañuy fexe ba nga xamante ne dañuy am fu ñuy jaay suñu produit balaa ñu ci ñu koy euh, produit bay te loolu euh, contractualisation bi nga xamante ne Euh, ARM ak ay partenaires am ñu ngi ciy liggéey nekk na lu am solo beneen objectif bi mooy fexe ba consommateur bi am produit boo xamante ne dana méngoo ak bëgg-bëggam te njëg bi dana yomb loolu donc loolu moo tax tamit damay wax ARM ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ñu góorgóorlu mun a indi ni mu gën a gaawee. Euh, lu mel nii liñ fi gis tey muy ay ligne de conditionnement de calibrage pour euh, oignon ak pomme de terre di wax nii troisième objectif bi nag moom mooy fexe ba production horticole yooyu mu gën am valeur te loolu li koy day laaj nag ñu gën koo transformer te pour transformation boobu soxla nañ am ay infrastructures de stockage pour ñu mun koy jaay ndànk-ndànk donc loolu yëpp xam nañ ne dafay laaj ay moyens yu am solo moo tax nag may jaajëfal USAID euh, ci jàppale bu ñu jàppale gouvernement du Sénégal pour ñu réaliser lii waaye tamit di jaajëfal DER di wax ni daaw metti woon na lool waaye bi ñu jógee taxaw indi nañu solution ci li ñu soxla seen intervention tax na coono bi wàññeeku bu baax a baax ci côté baykat yi